Ibrahima Seck may ki nga xamante ne mooy lëkkale kuréel gi ñu tuddee FENAB FENAB nag ñi ki nekk mooy képp koo xamante ne baykat nga te di def li nga xam ne moom la ñuy wax mbay mu sell te mu ci mbay moo xam ne amul tooke moo xam ne nag loolu dafay baax ci wér-gu-yaramu doomu aadama baax ci wér-gu-yaramu mala waaye baax ci kéew bi wala boog nga ne ci alam bi wala boog nga ne ci gànjar yi ñu yàlla may muy suuf muy ndox muy sax ngelaw li nga xamante ne moom la ñuy nokki looloo nag tey jii moom la ñuy jéem a doxal ba nga xam ne suñ kuréel gi juddu na ba tey ca at mañ naan euh, fu mu ne boobaak léegi mën na fukki at ak juróom ñun li nga xam ne moom lañuy yëngu yëpp mooy fexe ba nga xamante ne kii nga xam ne mooy waaye jëfandukaay bi te bokk ci réew mi fexe di am li nga xamante ne dafay suuxat wér yaramam waaye nag yemul foofu mu fexe ba nga xamante ne it mala yi lañuy ñuy jëfandikoo dafay baax waaye kéew bi dañuy fexe ba di ko defar jamono bu ne di ko toppatoo maanaam li nga xam ne moom la ñuy wax warale wirgo yi maanaam ni nga xamante ne moom la suñ borom daan bayee ndax ki nga xamante ne moo gën a mën a bay ñépp mooy suñ borom suñ borom bu yëkkatee jiwam sànni mu dem foo xamante ne loxo doom aadama nekk fa da nga fa gis garab gu njool garab gu diggu doomu si ngat gi mu warale wir wirgoy mbay yi mu suñ borom du def mukk menn wirgo rek mu dem ba xojo joj déedéet moom ni muy defee mooy warga worale wirgoy mbay lépp di jàppalante ndax mboole mooy mbooloo mooy doole muy ci nit ñi waaye muy ci li gàncax yi loolu nag moo tax ba ñun li nga xam ne moom la ñuy liggéey lépp mi ngi jëm ci mbay mu sell te mu ceeb mbay moo xamante ne day suuxat wérgu yaramu doomu aadama wérgu yaramu mala wér-gu-yaramu kéew bi nga xamante ne moom la ñuy wax nga yegg ci yëkkatiku doom aadama ko sax dàkk nasaraan naan ko développement durable nga xamante ne léegi dafay sukkandiku ci li nga xam ne ñun moom lañu moom ndax maam yi bu ngeen ko seetee ñun ci seen mbay la ñuy sukkandiku dolli ci xarala yu bees yi nga xam ne ñëw na te maam yi li ñuy jàngal mooy la ca jiitu balaa ngay bay ay jikko jikko yu rafet diina ju rafet euh, li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom fexe ba doo ko loola nag mooy mbay mu sell te mu ayib ñun loolu la ñuy jëfandikoo loolu la ñuy yëngu ba nga xam ne nag tey yii ñu nekk fii di ko bëgg yaatal fukki at ak juróom a ngi nii ñu koy def waaye fu mu ne nag ñu ngi ko tàmbalee woon ci gox boo xamante ne moom la wax goxu ñaay bi waaye tey dañu bëgg mu law fépp ci Sénégal am na nag ñu ñu kiy jàppale muy ay borom alal yoo xamante ne ex EPR led waaye gouvernement bi tam mi ngi ñuy ndax léegi ci ferñeent yi ñuy def ci suuf si ngir tocc ko tey jii nangul nañu lu ma ñeenti téeméer yoo xamante ne yu ton ton mooy euh, euh, euh, junney kilo yoo xamante ne jox nañ nangul nañu ko ñuy jënd saako bi nga xam ne moom lañ daan jënd ñaari junne ñun tey ñeenti téeméer lañ koy jëndee loolu nag mu nekk lu baax loo xam ne mooy dooleel suuf si ndax suuf si ginnaaw dañ ci daan def ay ferñeent yuñ nga xamante ne ñoom danaañ jógee fële muy ay tooke loola ñun duñ ko def ci suñ mbay ñun nag lu sell te mucc ay rek la ñuy jëfandikoo loola ci la ñuy nguur gi di jàppale waaye nag am itam ay borom alal yu tudd ex EPR yu tudd let yu tudd gouvernement Allemagne BMZ ak GIZ ñoo ñuy jàppale ci alal ju ñu defee loolu nga xamante ne tey jii ñi ngi am juróom fukki junne yi Ah, ñoo xam ne suñ ñooñ lañ ñu bokk ci ñun di def mbay mu sel te mucc ab ci biir réew mi ñu bëgg koo yaatal dooleel ko ba mu nekk loo xamante ne tey jii li ñuy bay ci Sénégal yépp dem ba doon loolu ñu dem ba senegaal man boppam ci dund te ku man sa bopp moom sa bopp xamante ne moom lañ seetlu ci ah, ah, ñaar yi jiitu loola tey jii mën nañ wax ne ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaaru baykat ñoom tey mbay mu sell te mucc ay rep la def ku jënd li nga xamante ne moom lañuy jaay danga ko xam sax ca caf ga ba ndax léegi ñun bu fekkee ne bay nañ suñu soble soble boobu mën nga ko jent juróom-ñeenti weer ba fukki weer ak ñaar te du yàqu loola nag li nga xam ne moom amul benn tooke bu ci nekk te day suuxat sa wér-gi-yaram loola nag tey yi seetlu nañ ñun ñun am na njëriñ lool ci waay jëfandiku yi ñaareel mu mooy dafa am ay cóolool yoo xam ne ñi ngiy jóg di dem ci kaw jaww ji di euh, loo xamante moom la ñuy wax gaz à effet de serre ay cóolool la mel ni bu fekkee ne boyal nga sa furno te yanjagul saxaar sa nga xam ne moo ci génnee dafa nekk loolu gaz carbonique ñu ko CO2 wala dioxyde de carbone loolu nag day dem ci kaw jaww ji am na suñ borom niir wu mu def ci suñ euh, euh, kaw bopp yi ñu koy wax couche d'ozone niir woowu moo ñu fekk ak janeeru jant bi ndax jant bi sore nañu téeméer ak juróom fukki millions yi kilomètres waaye nag ñoom seen janeer janeeru jant bi euh, suuf àtt na ko bu yegg si woon ci ñun nag ñun ñëpp dañuy seey couche d'ozone boobu nag niir woow moo nekk di ñu fekk waaye coolool yi jógee ci suuf mooy li nga xam ne yëngu-yëngu yi doomu aadama def oto yi daamaar yi nga xam fafal yi di dem yooyu yëpp dañuy def loo xamante ne ay cóolóol yoo xam ne ñooy dem ci kaw di def ay bënnat bënnat foofu nga xamante ne moom la ñuy wax niir woowu léegi janeer jant bi di dugg léegi nag janeer yooyu ngeen gis ne mooy def ne fépp fu daan euh, sedd sax ma ngay tàng euh, géej yaa ngi wal te it ñaareel ba dem na ba nga xamante ne fu ne ay feebar yu bees sax ñu ngi dugg si ñu koy wax changement climatique loolu nag ñun li nga xam ne moom la ñuy def mbay mu selt mu ceeb dafay naq li nga xam ne mooy euh, euh, loolu muy CO2 carbone wala boog coolal yooyu da koy naq ci suuf waaye garab yi nga xamante ne moom la ñuy samp daf koy naan ba nga xamante ne puits de carbone lañ koy tuddee loolu nga xamante ne ñun dañuy xeex la nga xamante ne mooy coolal yooyu ñu koy wax changement climatique loolu yëpp mu nekk yëngu-yëngu yoo xam ne seetlu nañ ko mu am len lu am solo ñu bëgg koo gën koo wéyal ci Sénégal mu laal Sénégal ci gox yëpp incha allahu rabbi euh, euh, ñun li nga xam ne moom la ñuy liggéey dañoo bëgg a dem ñu dem a dem ba nga xam ne njëpp gi nga xam ne moom ngay jënde meññet yi nga xamante ne moom dafa am tooke njëg googu mu yem la ngay jëndee yow la nga xam ne mooy mbay mu sell te mu ceeb bu ñu yeggee foofu rek ñun suñu liggéey yemb na mat na ndax léegi xam nañ ne fu mu nekk nii ñun bu ñu bayee te amul tooke mbay mu sell te mu ceeb léegi boo jëlee téeméer bu dee téeméer léegi ña am na ci téeméer yooyu ñaar fukki dërëm ak juróom yu ciy tegu léegi ngir ngi jënd ñun suñu njëg loola nag lañ bëgg ñu dem ba nga xamante ne bu fekkee ne ka bay mbay mu am tooke jaayee na téeméer ñu nit ñu yem ci téeméer waaye jamono bii xam nga liñ ciy def lépp maa dafa bari loo xamante ne moo tax léegi suñu njëg gi dem noonu te it moom dafay nekk lu suuxat wér gi yaramu doomu aadama suuxat alaam bi tey baax ci mala yi loola nag ñun ñi ngi ciy liggéey ndax ñu dema dema dem ba nga xam ne képp koo xamante ne waaye jëfandiku ngaay ga ci biir réew mii ngay jëfandikoo mbay mu sell te mu ceeb ñu dem a dem a dem ba nga xamante ne danañ moom suñ bopp ci wàllu dund ndax ku moom sa ku moom ku man sa bopp moom sa bopp te nguur gi ci la jublu ñu nit ñu koy jàppale ci loolu mu ñuy jàppale ci li ñu soxla ngir mbay mu sell te mu ceeb dem fu ne ci réew mi waaye nag jox xëy ndaw yi ndax léegi bu fekkoon ne Sénégal fépp am na ndox ak jumtuwaay yi nga xamante ne moo ko war a gunge ñun de mën nañ jàpp ne Sénégal mën nañ fexe ba képp ku taxawat nga xamante ne ndaw la toll ci war a liggéey boo ñëwee ci nga xamante ni ñun béréb yi nekk muy ci àll bi da mën a liggéey jëriñu a génn ci alal waaye liggéeyloo ñeneen te loolu lañu bëggu ci réew mi muy léegi ñu dem ba nga xamante ne Sénégal ñëpp am liñ naan yëkkateku doomu aadama ko sax dàkk te loolu mooy nga am ak piyeex ci wàllu li nga xamante ne mooy sa aada ak sa cosaan ci wàllu nekkin wi suñu diggante ci wàllu lépp loo xamante ne mooy aar li nga xamante ne mooy gànjar yi ñu may suuf ndox lépp loo xamante ne suñu borom moo ñu ko jox loolu nga xamante ne suñuy ñoñ yi war a ñëw ëllëg ñoo ñu ko dénk ñu jëfandikoo jëfandikoo ko jëfandikoo gu mucc ayib ndax ñoom ñu mën cee jëriñu ëllëg waa ñun loolu dañu yaakaar ne loola moom waratul mën a wéy baykatu Sénégal mën nañ fexe ba lépp lu ñu soxla muy meññet muy lujum muy dugub muy lépp lu ñuy jëfandikoo mën nañ koo bay fii ci réew mi ñun de nangu nañ ne ku ñu jàppale ku ñu jàppale réew mi ñu fexe bu soobee yàlla ba kenn dootu fi jël jëggaaneeti loo xamante ne moom lañ dund walla meññeet yoo xamante ne tey jii ñu ngi koy jële bitim réew di ko indi ñun loolu saa yuñ ko gisee reer suñu xol jeex na ah, dañ ciy am sax gàcce ndax lépp mën naa ñor macha allah ci biir réew mi ndox bu fekkee ne ndox mi matal na biir réew mi yépp ñu bañ a yow yem rek ci taw bi léegi fu laal ndox Sénégal jumtuwaayu mbay yi am léegi ñu xeetu jiw yi nga xamante ne mooy tax maam yi daan ko suuxut mu dem ba ci lépp loo xamante ne mooy bene wala boog nga ne léegi dem nga sax ba ci lem ñun mën nañ koo am ci réew mi lu doy bu fekkee ne jàppal ni nañ ñu ko te mu nekk loo xamante ne yoonu mbay mu sell te mu ci ay mbay moo xamante ne du yàq du yàq suuf si day tocc suuf si waaye meññet ma ciy jóge